Jollof Chicken ak croustillante neex commandeel rekk ñu livré la Jolof Chicken moo leen di may li ci yéenekaay yi jërë ngeen jëf singili gi Macky Sall singili waa kër Ousmane Sonko yi loolee tax na ba bureau politique bu Pastef génn ci pata pataaral ga mu nekkoon ubbil l'indépendant yéenekaay Bassirou Diomaye Faye ak mbooleem ña mu àndal ca bureau politique bu Pastef leetar bu gudd la xaatim yónnee ko mbooleem kuréel yi nekk ci société civile bi Sud Quotidien yéenekaay ne waa kër Sonko yi yamuñu rek ci kuréel bokk na ñu leen singili di wër a jàpp seeni naataango ak fu ñu bëgg a taxaw defub manifestation ñu ne leen du fi mbiri maître El Hadji Diouf ba ñu suspendre ca ordre des avocats source ay yéy na ci yàbbi ci xët mu njëkkam yéenekaay bi ne moom maître El Hadji Diouf moo war a conseil de discipline ordre des avocats lay ñuul te sow mi mooy seetlu nañu ne am na ci ay avocats yooyu Ousmane Sonko la ñuy ci coow li dox diggam ak soxna si di Adji bi ne digganteem ak Adji Sarr wal fajiri yéenekaay taxaw ci tànki defante kook Babacar Diagne mi jiite CNRA ba mu saf-saf yéenekaay bi ne waa kër Sidi Lamine yónnee nañu bataaxal Cour suprême boole ca di waajal toogaayum ñaxtu bu rëy la ñuy ñaawlu ñoom waa wal fajiri ne Babacar Diagne mi leen darne darmendra loolee la ñuy laaj luy ndayam Le Quotidien yéenekaay ne ko déedéet du maître Bamba Cissé dong ndax am na yeneen ñaari avocat yu layel Sonko bokk ci a fukki doomi aadama ak juróom ya ñu ca teg loxo bu ñu sàgganee kaso la ñu jëm moom Serigne Assane Mbacke ak mbooleem ña ñu ca teg loxo foofee ca Touba Mbacke libération yéenekaay ne juróom benn fukki doomi aadama ak juróom yee bokk na ci ñeenti élève yu ñu defeere démb yëral libération yéenekaay journal bi ne Serigne Assane Mbacke ak ca teg loxo ci talaatay tey ji la ñu war a jàkkaarloog procureur ci wàllu tàggat yaram las yéenekaay xëy dikkaat ci combat bi war dox diggante Modou ak Boy Niang 2 bi ne bu dee Boy Niang 2 dégg roi des arènes la bëgg Modou Lo nee na ko loolee du fi amee dox démb diggante ñaari mbër yi yéenekaay bi ne seenub diggante tàmbali na tàng xaat te dara xewagul. Jolof Chicken moo leen doon may li ci yéenekaay. Jolof Chicken ak croustillant teneer commandeel rek ñu livré la.